parce que aussi c'est problème bi mooy nekkoo Sénégal hmm, yaa nga Dubaï hmm, toog mais di joxe ay information yoo xamante ne yu sensible yu doy waar la ci ci ci seen ci euh, ci actualité bi mais ci ci ci yenn yenn yenn yenn lii xew lii xew Sénégal nga gën ko bëgg xam sénégalais foofu ñëw dama fa bëgg a ñëw mais comme yaa ngi yëngu ci affaire euh, corps militaire beeg armée bi dama bëggoon aussi ñu dugg ci. Euh, disparition wala meurtre Didier Badji ak Fulbert Sambou ak les cinq commandes euh, euh, marins yi marines yi nga xamante ne aussi euh, seen disparition doy na waar aussi nga mën nañu ci dikkal tuuti. waaw waaw xam nga parfois ñun dañu nekk ñoo xamante ni cent cinquante et un entraîneur lañu. ñu nekk force armée ok parce que général bi dafa ni mënoo wax homme de tenue te waxoo ok. parce que boo ne homme de tenue rek da ngay indi sport teg ko moo tax première des choses bi ngay njëkk a def de tas journée c'est le sport. Mm-hmm. bañ na ba examen pour nga paase pour nga passer grade mënoo jaar fenn te jaaroo sport. jaaroo sport cinquante pour cent la ci note. Mm-hmm. ça veut dire ba pare cheikh bi pour mu gën a motiver yi dafa jël officier yi jël benn prime. bon bu ma ko waxee mooy cinq cinq mille dirham presque huit cent mille. Mm-hmm. teg ko. mu ni chaque 6 mois dafa am test si ngeen di def effort physique test bon test yi ay étape la ñun ñoo koy organiser. Mhm. xam nan lañ koy defee presque 3 étapes la léegi yokk nañ ko ba 5 boo ko réussir 500 5800 millions yi day tegu sa salaire bokkul sa salaire mais prime bu ñu la jox rek dafay tegu. ok ba 6 mois jeex. Mhm. nga defaat test yi boo ko kon ne réussir 800000 yi di tegu sa salaire rek. mais des fois bu nekkee danga nga feebar mbaa dara nga indi papier dañuy comprendre mais sa xaalis day continuer di dem. ok pas comme Sénégal fii dafa xaw a jaxasoo trop. Mhm. aussi man. kooku de waroon nañ faa yóbbu Moustapha Diop ak man Birame Wathie. <laughs> Hmm? waaw gars yi <laughs> foofu. Mhm. des fois ñu bëri day am lu ma metti en tant que sénégalais ma nekk fa. Mhm. chaque jour dama fay nekk di di mel ne lu triste xaw a stressé gars yi naan ma faal qu'est-ce qui parce que pour man soldat yi li ñuy dund. ñun mën nañ ko dund. te ci li nga wax ba rebondir ñëw ci Fulbert Samb di Badji. Mhm. ñëw aussi ci homme de tenue yi. Mhm. si laay ñëwee ci sunu président ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le son premier ministre Ousmane Sonko di sunu président de parti. Mhm. man 2021 bu ma duggee ci politique ba ne activiste bay nekk ba sama liggéey des fois. ba nu jour bi nu jàppee président Ousmane Sonko benn anecdote ban ko jàppee. automatiquement renseignement yi xam nga dem na fépp Al Jazeera partout. bi ma ñëwee di liggéey si général bi li mu njëkk a joxe colonel euh, major de la garde nationale des émirats li mu njëkk joxe dafa ni xool leen faal ban humeur la ñëwee. Mhm. fu ngeen xamee ni ça va rek def leen la tout ba yéen entraîneur yëpp waxtaan leen ak moom indi leen ko dem ba indi koo xamante ni ci yàlla lay wax ak yonent bi. Mhm. pour muy waxtaan ak man jéem ma naan àdduna nii pour jéem a jéem a remonter moral. te jour boobu aussi ma indi benn wax bu président Ousmane Sonko ma sa wax nee na. Mhm. Pastef benn train buy dem la. ci yoon bi ñii dañuy wàcc ñii di dugg. ñii di dugg ñii di wàcc ñii di dugg. ok man ci dugg bi nag dafa am ñoo xamante des fois ñu dugg nekk ay Ousmane Sonko dëgg. Mhm. mais doo leen mën a xam. ok c'est que xamandoo ñëpp. absolument am ñoo xamante ni sa baa man des fois li ma xeex sax damay naan am bu ma xalaatee ñu dee rek. damay mhm. naan bon. des dama bëgg a toog sax naan lii laa ci def lii laa xeexee nii laa xeexee. Mm-hmm. en plus jour bi ñu ko jàppee juste man si laa si laa bokk ci ñu tëkku Macky Sall dëgg. Mm-hmm. ma ne ko tey nga jàpp Ousmane Sonko tas Pastef après nag naa ko ni nag voilà léegi nag guerre ngi soog a commencé. Mm-hmm. boobu ba léegi ñu ngi neng nengal. parce que aussi on te voyait foofu sa live yi nga daan def ak yëpp mais ngi daanaka président Macky Sall da nga ko déclaré woon guerre. Euh, saa yu mosaan génn di wax Zaid dañ ko gis mu dal ci régime régime Macky Sall bu baax. waaw ah, mais dem naa ba ni ko carrément parce que période boobu dama doon naan état bandi la yor il faut oser le dire. Mhm. ay moor yoo xamante ni Fulbert Samb Didier Badji seen corps gendarme amul benn enquête bu ñu def teg ko sur la table sur la table naan la grande mhm. foofu fi may njëkk a ñëw mooy il faut ma wax ak sunu président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mhm. notre président parti Ousmane Sonko rupture bi ñuy wax. Mhm. Pastef laa bokk ñëpp loolu kenn naa tablé ko. mais man si gëmuma ko. Mhm. gëmuma ni rupture am na te rupture dina am ci conditions yi man duma ko gëm. lu tax parce que li tax duma ko gëm mënoon ni rupture kër da nga koy tabax immeuble te defaroo fondement ba. Mhm. te fondement d'un pays c'est les forces de défense et de sécurité. kon da da nga gis ne am na lu des ci ci côté boobu. commencé ñu sax ba muy des. ci côté boobu. parce que li ma ci gis dafa bëri ay ay déchets. mais Zeydi loo ci gis ci ay déchets dafa am ñu ñu war a ñu ñu ñu waroon teggi bàyyi leen fi wala lu xew. xam nga boo cofee bopp bi. Mhm. force de défense et de sécurité du bopp bi de. Mhm. xam nga les chefs de troupe yi yor yenn group yi ci commis bon ma boole ci sax police. commissariat yi yenn groupe yi. dem mission ñi mhm. ne gendarme yi ne ci ay frontières yi waa Garci. force spéciale jàppal baay ñiy gérer troupe yi man man Zey mënuma comprendre. déjà yow ñi nga xamante ni ku génn di dawal oto en tout sécurité di dem di noosi di yéeg avion di ñëw. Mhm. parce que da nga am ñu la sécuriser. ok pour man ñoo ñu yor sa sécurité dëkk ba téye ba nit ku ne mën a toog fu ne di wax di yuuxu def lu ne. Mhm. ñooñu kenn mënu leen fay. absolument personne. Mhm. moo tax Cheikh Zayed bin Sultan El Nahyan ba mu taxawee dëgg dafa njëkk ni dëkk bu ma koy defar fondement laa defar foofu la njëkk dem song ji. homme de tenue amul fitu xool sénégalais nii. Mhm. jël loxo bi dóor la wala saaga la xalaatu ko sax te émirati bu gis om de tenue da koy ruus benn yaay gis ku sew ruuj tuuti. Mhm. taxaw fekk ful gaare oto bi rek taxaw benn discours lay def ñëpp tas. ñëpp tas dem. Mhm. dafa def respect boobu entre homme de tenue ak population bi d'une façon. te loolu pour mu def ko. mais Sénégal nag ay jamono su nga nga baal ma mais homme de tenue aussi euh, seen taxawaay dafa xawoon doy waar vis-à-vis de la population yoon gën di manifester parce que euh, benn exemple rek laa la ci jox muy xale bi ñu reyoon parcelle xale bi dafa taxaw yëkkati drapeau mais nga gis takk der bi taxaw la ko ba dóor ko mu daanu devant ñëpp di ko si ñëpp di ko gis. kon nag je pense que dafa amoon demoon nañ ba société sénégalaise ñu ñu jaxase les hommes de tenue ak les citoyens lambda ba ñuy xoolante ku nekk jàppe sa morom sa noonu la ko moo tax man la état ñi fi nekkoon mësuma gis ay bon il faut dire le mot yu nul laay wax nul. Mhm. comme ñi fi nekkoon. dañoo pour man damay taxaw naan ñun est-ce que dëkk la nekk. Mhm. nit yaay gis koo xamante ci parti bi laa bokk rek tu as tous les pouvoirs. absolument. mais am na ñoo xamante ni ko ñoo ñoo xamante ni ils sont armés jusqu'aux dents dañ leen di sant yoo xamante ni ba pare naan la procureur sama xarit la. ah bon mais attends ni naa la dëkk bi am na yoo xamante ni buñ ko doon teg sur la table di tudd ay tur kenn waxatu ko. Mhm. foofu laay waxee moo tax un jour. mais est-ce doon def njombe loolu jotul aussi ñu ñu ñu tudd seen tour ñu xam ñan la. parce que fii toog nañ fi bataay ñu ngi interpellé le général musa Fall par rapport ak euh, événement yi fi am. ñooñu ñëpp on va mettre leur nom sur la table man naa leen wax lenn rupture bi li tax ma wax amul. Mhm. ci question bi nga wax fa ñëw est xam nga. rupture mënoo ko wax ba pare jël lois et yi ñu fi français yi defal suñu armée yëpp ba léegi moo fi nekk ni mhm. lan moo ci changé ñu ngi doon naan assise de la justice dañuy changé woote gauche droite mhm. armée bi lañu war a woo ak police intérieur ak ministre des forces ñoo war a toog ñoom mhm. xool règlement ak loi yi ñu français tegal fii ñun indil ñu ko tegal ñu ko tant que ñi ngi koy appliqué ba léegi xam leen rupture amul Sénégal li ñuy def yëpp dëbb dëbbal la pour man Pastef laa bokk mil il faut dire les carrément am na ñoo xamante ni dañ leen war a raxas yow ay soldats yu nekk mission boo waxee ay mbur ak bër lañuy lekk ci camp yi benn ministre Macky Sall dugg na camp Abdou Diassé. Mhm. benn ministre Macky Sall dox ànd ak ki doon commandité camp bi nii gis ay bâche mu laaj ko bâche yi lan la rek mu ne ko fii ay ay casque lan fay denc ak ay matériel xaw ma lan te ay nit ñoo fay fanaan. ñoo fay fanaan c'est grave. mais man damay commandé benn cas ministre bi ñëw mais jour boobu damay organiser sax fête damay naan tey paxu kaña sax naa ko loqati ni ko li paxu kaña la. Mhm. pour que ñu defaral ñu ko. absolument absolument parfois je me pose la question chef de troupe bi. Mhm. ban problème la ñu am ak les hommes de rang. ministre gi ñëw problème dafa am man kay damay profité si laa ne nag mais y' a quelque chose lu ñu waxul. lan moo tax ministre bu ñëw mais xoolal keroog. général de la gendarmerie Mamadou Ndoye mhm. il faut dire son nom mooy caserne bi nekk fii Malick si xaw ma Jean Baptiste Sine dafa déclaré dafay jaar mais dañ doon peinture ba guddi gi nit ñi di peinture samedi dimanche dañuy liggéey di peinture mhm. bu ñëwee ñu solal leen tenue yu bees jël kaar yi teg kaaru sapeur yi pour que tege après bu ñëwee nu yoo RTS jël ñu def benn mais xam nga dañu faral di wax naan la grande muette parce que aussi euh, armée souvent euh, même bu amee leen metti ci côté takk der yi duñ ko ñemee génne wax dañ koy noppi wale c'est ça le grand problème nag États-Unis mhm. grande muette amu fa population bi am na nañu droit wax ci takk der yi si si ça ne mhm. France pareil ñoo gën a radical ñëpp. ok France indil ñu seen règlement ba dollil ñu yeneen yoo xamante ni suñu député yii ne fi yor seen làmmiñ tey hmm. ñoo ko voté assemblée lu France sañ ta def moom ci constitution am ok xeer sax boo ko sànnee ñu ne terroriste nga hmm. mooy la loi am na ñoo xamante ni du ma ni ñëpp a baax hmm. man y a des bandits dedans bandits dama koy wax bandits ñuy agressé ñu di toj kër nit ñi di sa seen xaalis bëri na ci kaso bi am na ñu génn am na fa ci soldats yi. Mhm. ça existe am na yoo xamante ni euh, nit normal mënu ko. simple citoyen mënu ko. Mhm. il faut nga jaar formation armée pour mu mën ko def braquage yu bëri c'était mais am na ñu bëri ñoo xamante ni génn nañu nee nañu ñoom dañu ranger jub jubal jubanti rek. am na ñu takk bracelet. Mhm. li may wax damay cité noo Fadilou Keita. ok seeti nañ ko ñoom du ma tudd tur ñu ko seeti de. mënuñu fexe ba gis ko gis ko mu yéeg woo nañ ko ba tax te ñoom ñi ngi xamanteeg Fadilou Keita ci kaso bi. ci kaso bi. xamanteeg Bilal Diatta ci kaso bi. Mhm. seeti na nañu Bilal Diatta Bilal Diatta recevoir na leen. Mhm. xam nga lii information moom kenn du naan am naam amul. Bilal Diatta bi takk der lañu woon. takk der nekkoon ci kaso ba. Mhm. ñu gis foofu lañu ñu xamanteeg Bilal Diatta ak kii. ba ñuy génn fekk na lépp sedd na dëkk bi yëpp sedd na mhm. mais nguur gi leen ba ñu doon génnee ñenn ñi pour déplorer leen yenn ñaawtee bi mhm. dañ leen ci boole woon ñoom ok mais ñoom xamuñu ni ñii ñi ngi leen ci boole mais ñoom changé nañu mhm. moo tax élection yi ñëw na ba kii gisoo ba léegi nguur déception bi ñoom mooy ni élection yi calmé moo parce que li ñu préparer lépp gars yi kenn réagirul parce que ñëpp dañ ni ñun orange ay patriote lañu ñoom gaa yi dañ leen trahir si seen jeu bi ñu doon joué ñoo ñu nee na dem nañ ci Bilal Diatta am na ci ñoo xamante ni nee nañu dem na nañu ci benn société Nestlé. Mhm. Nestlé dama koy tudd bii bu bu Sénégal. Mhm. doon def journalier. bàyyi lépp luy ñaawte pour rek yóbbu benn journée 3500 pour njabootam dimbale ko. absolument. mais nee na ba ñu gisee bracelet bi. dañ leen mhm. dàqaat nee na léegi imagine ñun génn bëgg boqaat bokkaat ci société bi bàyyi lépp mais fu ñu dem ñun ñu duggeen liggéey. ah bon Zeyid mais qu'est-ce qu'on va ñu ñu dàq leen ci fi ñu doon liggéey. waaw parce que ndax bracelet Pastef bi. waaw bi waaw bracelet électronique que voilà c'est c'est parce que boo nee bracelet rek du ñu xam man bracelet. ñu bracelet électronique bi leen takkal. tax na kenn jëlu leen. dañ doon liggéey après si la ko gars yi gis. woo leen nag ngeen noo finalement xam nga rek bàyyi leen léegi ñooñu nga bàyyi leen ñu toog génn nañu kaso déjà yéen yóbbu nga leen pour que yar leen ñoom comme conscient nañu génn nit nekkatuñ ci dara lu bon. Mm-hmm. mais pour ñu dugg bëgg am benn 3500 sax ak li muy néew 3500 yooyu nga xamante ne du dara yóbbu dimbale seen njaboot. ñu dàq leen. Ah, léegi ñu toog ci kër ga loolu moom injustice la quoi bu doy waar sax vraiment. parce que aussi jàpp naa ne euh, problème de réinsertion sociale bi ñuy wax aussi surtout ñooñu nga xamante ne injustement jàpp nga ne dañ leen tëjoon ci kaso bi euh, bu